lu fay anti guérisseuse soxna na fi fàllu fal euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alquran euh, ndox suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci au miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fal yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fal ma nga ci jokkoo ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83. dugg ak ci li nga xamante euh, a ngi koy waajal muy diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux ñu am fu ñu jaaroon demee tey ñu dàbbaliwaat combat bi war a dox ci ñoom ñaar mais surtout incha allah nekk nga jàngatee bés. waaw di ñaan rek euh, bala maa jàll. may ñaan nawet bi nga xam ni ci la ñu nekk. yàlla na ko yàlla suñu borom def muy nawet bu yàlla barkeel. di ndokkeel nag sama benn jarbaat bu ñu wax Moundou Fall. directeur emploi nekk Tuubaa. mu liggéey liggéey bu rëy di ndokkeel Dame Diop ministre bi nga xam ne moom lañ dénk artisanat di ndokkeel Malick Fall. ndax région de Diourbel dañoo gagné région bi. Mm-hmm. gagné département te loolu su amee Modou Fall suyee na ci rôle bu rëy. Mm-hmm. bala maa jax nag di jaale sama rakk sama xarit sama mbokkam taalu bi daan jaale. Mm-hmm. bàyyam dafa génn àddina mardi bi ñu génn. muy Alaaji Njool Jaane. moom Serigne Bassirou Mbacke ci njaareem. ma di ko jaale Serigne Mountakha Bassirou. di ko jaale daam ak fat jaane ak seeni rak mm-hmm. di ñaan mbaay njool jaane bés bu tedd bii ak weer wu sell wu tedd bii diggante tabaski ak tamxarit bii mu génn àddina mm-hmm. yàlla ko yàlla suñu borom teg ci loxoy mm-hmm. di ko jaale njabootam yëpp di ko jaale daam di ñaan fi leen féete woon yàlla na leen fa yàlla féete di leen ndokkeel ñoom ñëpp doon ci seen bàyyi génn àddina loolu di nuyu Fatou Diagne terewul mottali nañ li war a def seen diggante ak askan wi bawol xeebu leen yàbbu leen ndax seen jëfal seen jub waaye njaareem xeebu leen yàbbu leen maa ngi leen di wax ni làmb ji nu jëm yàlla nañ ci dugg ak baa génn ci ak siin di ñaan ñaari mbër yi yàlla na yàlla suñu borom wéral leen wéral seen njaboot def ci réew mi jàmm di ko ñaanal Gaston Mbengue le promoteur du continent lamb ju mës a tëgg am ci ndam yàlla ko lamb ji raw dimanche bi ñu séenu la ci arène nationale lamb ju rëy waaw neex laataa may ñëw ci lamb ji ndax ni ñu déporté quel combat bi naka war a demee bi gisee ñaari ci ne ñu woon sa forme Sénégalais yu waaw ñi leen critiqué xamuñu luy forme mbër su bëree ñaar fukki at soxlaatul forme daan baa daal rek lay xaar Balla Gaye Gris Bordeaux Gris Bordeaux deux mille maa ko jëkk a jëkk grand combat yóbbu ko Dagana mu bëreeg Samba Ndiaye deux mille ak léegi ñaata at la doon Gris def na lu ne ci mm-hmm. jàngatul bëri jàngatul xeex day meñcee rek Balla Gaye 2 li bëri def ci fanweeri at ak juróom moom la def ci fukki at ak juróom jàngatul bëri jàngatul xeex day meen cee rek waaw dañ di ñaari xarit yëpp nag su bii toog dañoo bëre bëre bu rëy mm-hmm. Balla mm-hmm. yàlla dogal Gaston Mbengue lu Sénégal yi ci mm-hmm. ñu war waaye ramas bu combat bu neex lañ doon te jël dana am bu soobee yàlla. seen forme gis nga si doole si ñoom doole. Euh, ñoom ñaar mënuñoo ñàkk doole. mbër bu amagul ñeent fukki at doole. 40 ans ci la góor di bari doole. xam nga doole nekkul ci at doole mi ngi nekk ci wér ak lekk lu baax. ak sport foofu rek la doole nekk. man mii fi mu ne li su ma bëggee doole deux mois ma tëju di nelaw ba mhm. di lekk lu amul diwlin di dem di yéeg ci diin yi. Mhm. ci baar di fixe. boole koog di kon soo ma gisee doo ma xàmmee su ma la téye doo yóbbu ñoom ñaar amatuñu dara lu ñu prouvé ci làmb lu bëggal askan bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex. waaw bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex balaa muy ñëw ci biir ñi nga xamante ni moo liggéey bi mu war a demee Sénégalais yu bëri def benn analyse boo xamante ne euh, à chaque fois bu Balla daan bëri dañ leen daan gis ci wetam ci mel ni Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ren ñu seetlu lu bëri suñu leen ci wetu Balla loolu. ndax ñu yàqal Balla dara ci biir làmb mu ñooñu mosuñoo tàqali ko Balla déedéet gis ak nekk bokkul lu nga ci wetu Balla nañ nekk ci wetu Balla sax moo gën a intense niñ daa nekk ci wetu Balla nañ nekk ci wetu Balla hmm. tey gën a dëgër tey gën a baax tey liñ gën a jige au contraire waaw dama la def ba Abdou Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ak famille am tey la ñu gën a jàpp Balla Gaye Aziz mooy gem Balla Gaye parce que type bii daan mbër doo ko lekk ci penc bi waaw. Balla Gaye Gris Bordeaux ci gi ndax la amoon dana amaat. du am xeex. bii am xeex. non non du bàyyi. même rek kenn dem waaye jël day gaaw lool soobee eh. am bëri bu neex nag. waaw bële passé ñu bële presque quarante minutes xaw ma quarante cinq minutes xeex bële dugg génn di bànn du yegg foofu. non non non loolu mënut nekk loolu amul mënut nekk. non loolu ñoom ñaar si xam nga xam nga ñoom ñaar combat bi gën a neex ci combat yi ci àddina ñoom ñaar ñoo ko bëri quarante minutes ñaari poids lourd hmm. doo dem ardo song. Hmm. wéele gala jaare fàqat sukkër bi mbas mais loolu amateur yi keroog dañoo dañoo kontaan. loolu mooy bëri xam nga ñëw ci làmb kirib tàcc arbitre soufflé ñu dóor kenn mu toog wala arbitre soufflé ngeen jàppante kenn wañ moroom mu toog ci ay secondes ñu naan une minute wala trente secondes loolu mën na am amateur lu tax ñu nekk toog di xaar jëm vingt et une ba ban changement nga gis ba ne la amoon du amaat ci ñaari mbir non non dootuñu egg foofu ci àddina bi ñu àgg sax dix minutes changement bi nga gis si ñoom da nga gis doole yokku na si ñoom entraînement yokku si ñoom wala dañuy yëg ak làmb yi foofu. doole àgg na doole yokku na si ñoom ba pare ñoom ñaar yëpp gën nañu te kenn ku ci nekk daan dafa am fu mu la yóbbu Balla Gaye dafa am ñaari avance yu mu yor yu bokkut ak ci avance yooyu waaw. bi a yóbbu ci ñaar kenn ku ci nekk dafa wàññeeku la dara ci àddina làmb nag ngay waxal man waaw waxumaa nit kuy làmb bi di wax ku am xam-xam mooy wax ak yow ñoom ñaar dafa bànnee ci leen dara ci àddina tàkkusaan bu ne bàll la ko bi bu ne kii bu daal waaw kon dañoo toll fi Tyson toll ci làmb business làmb mais loolu normal hmm. waaw Faal daf ma waxam ni ma làmb doon maas damante la ku ci yàgg la mu fekk la ci làmb ju Balla Gaye Gris Bordeaux nekk Sa Thiès ñëw booy ñang ñëw euh, wax yi ñëw ñoom ay ko ñoom ñoom ñoom koyen sama doom ñëw euh, euh, ta ta booyu bi bu xew bi bu xele bu man bëri Serigne Ndiaye ñëw Serigne Ndiaye ñëw Giri Deux ñëw Giri Deux ñëw général ñëw général ñëw Moustapha Gueye indi Giri Bordeaux mais quand même loolu loolu da ngay xam ne Balla ak Giri Bordeaux ak Bombardier ak Eumeu ak Modou Lo ñooñu léegi ak Tapha Tine mais cee rek la ñuy def waaw def nañ ñu war a def. ak yeneen lamb jaraloon du leen di gànnaat liggéey. mënatul rek. tey jii bu Balla Gaye wala Gris Bordeaux ne wala équipe naa cinquante millions wala trente millions def ko ci musique ci lamb ñu ko def. non. Hmm. aussi. bu ñu àggee ñoom ñaar fu àgg ci lamb ba jël cinquante millions bu def ci mystique seen début làmb da daan dégg na fay làmb ji def naa làmb. waaw xam nga xam nga tàmbali ak dem nekk ci digg ba ak ne cat la bokkul mbir bu tàmbalee tàcc yu neex te xamante ni tàcc miiru ko dëkkan ci kër goo xam ne gii daa seet nga dëkk ci R plus 4 war oto bu jar cinquante million du bokk ak mbir mi nga xam ne dem na ba buukale na. am na lu koy jox dépasse doonte bëriwul hmm. ndax mbir saa bu daanee mbër yëpp dootu def lu tax mu daan saa bu xëyee lu tax mu daan lamb ji saa boo xuubee dootoo def lu tax mu daan waaw. communication ñaari mbir yi ñemante rek. ah non ay jàmbaar lañu. ñaari doom lañu ay jàmbaar lañu ñu am fit lañu ñu ñime lañu ñu man bis ñu tàmm bis. waaw tàmm nañu bis xam nga ñëwee bis ak tàmm bis boo bis di nga ko ñëwee te doo ko tàmm ngir bëgg tàkkusaan bu neex xam nga mbër mu ñemee affronté Bombardier amutoo loo ragal ci àtt bis mën ci laal àtt ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk jàkkaarloo ak moom mbër mu mën a jàkkaarloo Yékini ca ba muy xew làmb jaaxal man daal nga gisee li nga xamante ne daal moo waaw combat bu neex la xeex la ñuy ubbee mais ci bëri lay jeexee bu hmm. waaw. su juum daal mooy daal. waaw euh, lamb boo juumul doo daanu. mais tey Balla boo ko doon digal ci lamb yi lan nga koy digal. Balla su ma ko doon digal mooy ndox du bàyyi yoonam. Hmm. Balla bu at bi message bi wax nañ dem àllaaxira ku ne jël li mu waaw. waaw. ràcc say tànk kurpe yi mel ni mbaxal xeer rek xanaa xamoo ne làmb ji ñu dàq xeex Gris Bordeaux bariwul de mm-hmm. ak Gris ku mën a xeex la kaaw kenn ku ne am nga loo mën mm-hmm. Balla dana xeex dana bëri Gris dana xeex dana bëri mm-hmm. moo tax làmb ji neex parce que Gris boo boo ko woo ci xeex mu xeex ak yow te saa bu xeex ak yow xeex bi dëgg day def saraax xanaa xamoo ne Gris Bordeaux c'est rare mu song luppee fi mu ni song Gris Bordeaux Eumeu Sène dese song ci làmb ji ci bëri ak sama doom bi nekk caaro yi hmm. ki bëri woon ak Maodo te daan Maodo dëgg waaw ah, dañuy song waaw song mu ah, njëkk dañuy song sa wax la ñuy jàpp eggalee ko si diggante kiw sa sa sëri hmm. te direct ngay def waaw bàtt nag moom même bu songul dafa jàng boo songee li mar a xam nga giri song na ko fois mais da koy dindi waaw. lamb ji daal doy na waar. non non combat bu neex lay doon ñaanal mbër yi am wér rek Sénégal yàlla def fi jàmm ñu fete ko bu soobee yàlla incha allah dimanche prochain. incha allah waaw loolu daal moom laay ñaan Sénégalais ak Sénégalaises yëpp waaw. macha allah loolu aussi di kàddu yu am solo waaye xam naa damay tëjee ak loo xamante ne aussi yàggul dara nga defoon ci émission mu juróom polémique bu bëri ci réew mi sénégalais ku ci ne def ci sa commentaire ngeen papa toll nga ci ndawal foo xamante ne bu ñu reyee xar mu góor ak xar mu jigéen mën ngaa génnee yàpp xar mu góor mi fii génnee yàpp xar mu jigéen fii ñu bëri nag bañ wax jooju. Euh, xam nga Sénégal dañuy bëgg lu ñu xamul bañ lu ñu xam. su fekkoon ni ay jaay jaaykati yàpp ñoo dajaloo ne lii xaadim sàmm mënta wax mënta am hmm. boobaa waaye ñu koy wax duma ci tontu parce que xamuñu ma man ba mu juddoo ba léegi lu ma am ci àddina yàpp ma ko jox hmm. su fekkee mënuñoo fees xar hmm. taraase xar mi dindi bopp bi daggat ndawal gi ma ñëw ne tànk bi tànkab xar mu góor tànk bi tànkab xar mu jigéen la loolu moo gën a yomb ci li nga xam ci xar man bu ñu bu ñu bu ñu nee xar may la xar bi noor la judd mbaa nawet la judd. ñaari maa la wax loolu der bi sax damay xam der bu góor la am der bu jigéen soo rendee bëy wu góor ak bëy wu jigéen maa ne la der bi bëy wu jigéen la der bi bëy wu góor la boo rendee yaari bëy yu jigéen may la wii mas naa jur wii mës ta jur boo rendee ñaari bëy bëy bu bëy bu ñu tàpp ak bëy bu ñu tàpp bu ñu góor bi ñu tàpp bu bii tàpp ñu ko soo leen leen leen fees ko teg den ma ne den bi dañ koo tàpp den bi tàpp ñu xam-xam boobu ndax nga koy xamee Pape. ah non ci laa judd ci la sama baay ci sama maam ci la sama ci laa judd ci laa màggat ci laa liggéey doon gone ba egsi fii ba fii ma toog di wax yéen ci yàpp laa nekk. Mhm. yàpp ma jox lépp ci àddina luy teraanga ci àddina yàpp jox na ko. roplaan rek dama yàq joxumul ci àddina loolu dafa yomb xam nga bi ma reportis fi defee su gàllaay génne ma ne gàllaay gi ñu ko liggéey dëkk sàngam ki koy wedd dafa gàtt tànk te xamul luy gàllaaj amul gàllaaj mais gàllaaj bi parce que damay damaa dem fañ ko liggéeyee wuti ko fa te booba kii wuti amu ko xam ko manque googu nga xam ni mooy ndox ba di am pay ñu di ko takk ci wet ak càmmoñ mm. am na takk suwaay moo ko daal liggéey ci sañ tëba naa ni da ngay ñëw wukk pëntu nga jàpp àll bi dem moom rek moo ko daan def ki Pape Diop ko jëkk a takk ci Sénégal balla bay dee topp ci maa ci topp am na béjjén boo xam ne su génnee may kii ñu ngi liggéey dëkk sàng parce que am naa uti naa ko mm. am na sengoor yoo xam ne bu génnee ma xam sengoor gii ndax juy na ko defar ndax a ko defar ndax ronk lañ ko defare ndax man lañ ko defare ndax ñu ko defaree boofu ndax ñu ko defaree euh, caajaay ndax ñu ko defaree gudóom ndax adiyaan lañ ko defare wala jibaa naar wala bàkkundi xam nga Sénégal ci ñi wax war a wax bi ñëpp nag dañuy weddi lu ñu xamul yow doo yow yow yow doo bousee yàpp li lay booleeg moom lekk xamoo sax yàpp bu ñor ak bu ñor xàmmee woo ko lu ñu la jox nga lekk nga saf rek mënoo waranteeg man ci yàpp man yàpp defal na ma lépp lu julli lu doom aadamay am ci àddina ci kaw àddina di ko am yàpp moo dox mm-hmm. waaw yàpp defal na lépp ci àddina moo tax ma xam ko parce que moom rek laa bëgg a xam ginnaaw sama diine bëgguma xam dara lu yàlla jànguma jànguma jànguma français jànguma mécanicien jànguma tôlier jànguma ñaw jànguma menuisier jànguma dara ci àddina yàpp rek laa jàng. ci laa judd ba am juróom-ñaar ci wax naka gars yi nga ko def téere xam nga judd ci sa sa baay ci métier. sa maam juddu ci sama maamaat juddu ci sa ndey juddu ci nga juddu ci màgg ci jur ci ay doom am ci ay rakk am ci famille ñëpp di busee kooku loo ci wax askan woonu ko weddi ku ko weddi naa fekk la wala ngay nit ko xamul dara mbaa nga añaan parce dafa am nag ay nit yoo xam dañu añaan fi mu nii day loo xam ne soo ko waxee nit ñi naa ndax lii mën naa mën naa day am ki añaan am xolu kañaan kañaanu biir dafay wax mën taal mais na ma gisee yi weddi da dem ci ay buse nga ne leen xaadim sàmm wax nangam filmé leen nii nga ma filmé ñu weddi ma dafa am benn anecdote bu ma lay jox son patron dollar fii Ahmed Fall dollar kii moo ma jàngal jaay ji yal na yàlla dolli ko leer ak sama papa Alaaji Iba Cuun Basiru Damel xam nga Iba Cuun Basiru Damel ay doom lu ñu wax ci yàpp pare nañ koo gën hmm. Alaaji Ibrahima Cuun baayam Amadou Gueye Cuun bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul sante sëriñ Modou Moustapha laay bi jógee Njaaréem dem Touba ndax jumaa ji mën a àgg bi nga xam ni moom la maamam signé war ak naar yi morale porom ci deen rawita yàpp Alaaji Ba Cuun Amat Géey Cuun dafa resserré contrat ne fas na yéene ba weer bi del si déwén bés bu nekk dana ngay yaay nag jox ko sëñ Modou Moustapha ngir contrat bi tubaab bi dañ ne sëñ Modou ñiy gas bi dañuy dox il faut ñuy lekk yàpp kooku ay doom lu ñu wax ci yàpp rek su koo dama toog dibiteri maag dollar sama patron cinquième dibiteri booba huit personnes ñooy liggéey dix moutons par jour la def quinze moutons ginaar cent quatre-vingt soixante soixante-dix fii ci rue trois angle Blaise Diagne ci wetu poste bi am suñu benn euh, collègue bu boucher bu firigoom yàqu mu jël benn sigo dénkaane sigo fii léegi xele yi man maa ngi attaayal dollar sama patron man maa koy attaayal bu ko ut seet mm-hmm. moom du jaay day sañ si ma di mu attaayaat bàyyi ba cun gaare oto bi dees mooy premier buse bi jëkk war dees dees alaaji bàyyi ma cun buse bi yàlla ko yàlla dolli leer xale yi bi ñuy génn yàpp ci frigo yi ñaari consommateur lañ yor booba jaay ma trois mille jaay ma mille jaay ma deux mille jaay ma mille franc boobu morso cent franc la ñuy jaay yàpp cent franc boobu mille franc yàpp nit mënu koo lekk xale yi juum génn fekk kooku yàpp bi mu fi dénkaane sibo bi mu dénkaane bëy la mais bëy bu jigéen yàpp yi dafa weex day nuróo day sàcc yàpp xam léegi xale yi juum génn sibo bi si dagguñu ci léegi sama papa Alaaji Ibrahima Thioune bi mu ñëwee nuyonteeg dollar ndax bu taxawee ñëw ñun ñëpp dañuy jóg nuyu ko ndax yàlla teral la mm-hmm. taalu bi seet Soy Mbàkke la woon mu ni mu ni ma xaadim ma ne ko mbàkke mu ni ma dagal ma ci sigo bële atrous bi dagal ma ci sigo atrous daf ma làkk naar dollar ni ko atrous amu fi alaaji mu ne ko ak ah ay sigo bële atrous la dànd na quinze mètres mbaar bi fukki mètre ak juróom fi sigo bi nekk ak fi alaaji ba cun taxaw ci ci ci ci tali bi quinze mètres la mu ne ko amee kële atrous la dollar ni ko atrous amu fi vie mu toll lañu rey tey te lépp xar la mënu ko kii attirus la dara ni mu tëdd non xam na te ñoom ñaar xam na ñoom ay académiciens lañu ci yàgg ñooñu ñoom ñoo formé ñooñu ay xam nga sawar mm-hmm. ni Cheikh ci micro noonu la Ahmed Fall dollar sama patron mel ak góor gi Alaaji Ibrahima Thioune ak Alaaji Moussa Fall ak Ahmed Viis ak góor gi Makan Fall ak sama papa Sidi Kane ak sama papa Mahmoud Dieng yàlla ko yàlla dolli leer ak sama papa seen jéeg mu ngi fii nii sànq di jaay yàpp nag ba tey mais ñu werante papa yi ba cuur ne amee kee at rouge la barke rasulilah ñu da wax ne mënul nekk Iba da nga juum mu ne ko at rouge la ma wax mu ne ko barke sox sooy bi kii at rouge la ma dem ndékki ko sër mu ni ma eh taxawal kiñ ko kii na dénkaat mu ne dañu juum euh, su suul moo fi dénkaane man sugo bi ñu xool ko muy at rouge at rouge ci naar mooy béy mais nag. bu bu bu bu fekkee dangay ngay jaay yàpp tey jaay yàpp bëy bu njëkk da ngay da ngay gis boucher bu rey xaar lay bëy di ko jaxase di ko jaay ndax Dakar bugguñu bëy doon nu mu ne bëy bi génne si ko bëy bi naar mooy wax bëy aturus aturus mooy bëy bu si képp bu mag anc mooy bëy bu jigéen bu duuf mais keroog dollar dafa def dafa dafa dafa def wax dëgg macha allah donc yooyu euh, yooyu ay feera gis nga gis nga man naa tëdd man fii may wax ak yow. Mhm. barke Serigne Touba. Mhm. man damay sàmm. Mhm. boo juddoo ba léegi maa xar am. xar yi kër gi moo am di dëkk ci kër ku mel noonu laa ko xar ak ñi leen yor damay tëdd guddi su xar mu jigéen meemee mu mu mu a jur dinaa ko xam su xar mu jigéen meemee mu juragul dinaa ko xam su xar mu góor meemee dinaa ko xam su mu jigéen meemee dinaa xar bu jigéen bu mës a jur bu mës a ku ci jooy di nga xam. ku ci jooy dinaa ko xam ndax man xar laa. Mm-hmm. damaa judd rek gis xar xar gis la maa xar xamuñu kañ lañ ci àdduna dañoo juddoo loolu dañoo juddoo loolu dañoo màggaloo. macha allah. <laughs> fii nga toog xarama ko jox. Mm-hmm. waaw. muy kàddu leeral yu am solo ah, ci nga xamante ne xëy na critique yi bëri woon na ne waaye lii nga ci leeral xëy na dinañ la gëm bu baax a baax a baax. képp képp koo xam ne as gor nga ak jullit nga te da nga dee laloo sa ndijoor soo nee mënta nekk da ngay dem rey aw bëy rey xar dagat ko indi ma séparé la ko waaw naa Sénégal daal bëri ñu mën a topp kaa waaye pour yéen ñi pare pour def loolu rek ku ci pare rek na nga contacter Sénégal bu daal ñu ànd ak yéen bépp yi sama papa def leen li nga xamante ne moo di preuve ah. jeex na jeex na sàmm la sàmm sàmm yéen ñi rek nga joxe dernier kàddu bi daal di waaw jërëjëf euh, maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant hmm. di leen ñaanal yàlla parce que Sénégal bu 2024. ñu ngi leen seetaan fépp ndax seen yar ak seen i li may dénk journaliste yi di ko dénk ñu réseaux sociaux yi. Mm-hmm. te leen génne lu baax tey wane baax. Mm-hmm. ndax dama décidé woon ne dootuma wax ci réseaux sociaux ci àddina. Mm-hmm. ndax da ngay wax benn moo ñu tagg ko génne ko pour ay te am réew bu ñu demee ba ki dàq saaga wala ki dàq wane lu bon la ñu gën a seetaan àddina maa ngi balu Sénégal yépp ak. di baal ñëpp ah di ñaanaat yàlla sunu borom réew mi yàlla fi yàlla loolu jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu sama xarit muy Alaaji As Ndaw bu Kumaan di ko jaalal yàlla yàlla may ko fan wu gudd di ko félicité ci taxawaay bi mu taxaw As buggul doon ministre buggul doon député buggul doon dara ci àddina lu dul taalibe bi Seydi Hadji Malick te yàlla def buntam bi Serigne Mansour si borom daara yi may ñaan yàlla may ko fan yi taxawaay bi taxaw ci Sénégal taxaw ko ci askan wi taxaw ko ci alxuraan yàlla ko yàlla suñu borom ndax la Seydina Ousmane waxam Rasulullah kere bi mu waree dem xare moom la aas wax sëñ Maxtaar naan loolu ca daaray kokki ak daaray boppam da xam ne jamil la ko tuddee muy jamil lu bokk ak waajuram leer waaye mu di la alxuraan fay ci barke leen ci ci élection yi nga xam ni organisé na ko ci ndigalu président Macky Sall ak ay gouverneur ak ay préfet ak ay sous-préfet di ko ñaanal Antoine yàlla ko yàlla may fan gudd waa ak wér ci njubam ak gëm yàllaam ak rafetalam di félicité sénégalais yépp di leen ndokkeel félicité pouvoir bi ak opposition bi man nag damaa féete man président Macky Sall moo sama politique wax naa ko waxati ko mm. man Macky sama kóllëre tey laa ko gën a feddali ci moom sama jàpp ak sama yaakaar tey la gën a dëgër fekk mi ngi nekk ci bopp réew mi may ànd ak moom te su bàyyee politique fas naa yéen dootuma tàcc nit dootuma teer nit bàndeek doxam yàlla incha allah ndax nag euh, loo gis desam daf caa baax hmm. waaw ko yàlla suñu borom dogalee moo xam day yor réew mi vingt ans wala quinze ans wala dix sept ans wala dix huit ans parce que man lii man la engagé man Xaadim Samb man Macky mooy sama mbër moom laa samp mbër yëpp nag maa ngi leen di ñaanal ñu am wér waaye lamb ji nag buñ ci duggee Macky laa bëgg mu daal dal na ko yàlla may ndam yàlla yàlla may ndam équipe am opposition bi maa ngi di ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen yàlla suñu borom aar leen yàlla sàmm leen di ndokkeel Ousmane Sonko di ko félicité ak l'ensemble di wàllu ndax maam Abdou Aziz dama mos a ñëw mu ni ma lu waay def ci lu baax na ngeen ko wax ndax am na ko ko bëgg def ñax koo xam defu ko mm-hmm. su ko xamee def mais li ma la ubbiwoon mooy mm. pouvoir pour mu doxal dëgg-dëgg mm. il faut mu am opposition bu intense kon pouvoir opposition mooy mu jëm kon ma ngi félicité Sénégalais yépp mm-hmm. ndax lii nga jàmm la élec def élection loolu di ñëpp xëy liggéey yi lii am na solo maa ngi ndokkeel sénégalais ak sénégalaises yëpp di ñaanal nag sénégalais yëpp góor jigéen yàlla nañu am jàmm ñi nga xam dañu jàll ci Benno Bokk Yaakaar war a jiite assemblée majorité ba yàlla na yàlla suñu borom def nga amal askan wi ñi nga xam nit ñooy député yu bees ñoom maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nañu amal askan wi ngeen xanaa xamoo ni député askan bi dafa nekkal kon li ma bëgg rek mooy naka rafet seen kàddu yi wax lu baax maa ngi ñaanal xale yi ndawi Sénégal yépp góor ak jigéen maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen fan gudd yàlla may leen liggéey yàlla may leen ñu góor yàlla may leen ay soxna ñu am doom yu baax góor jigéen yàlla may leen jëkkër ñu am doom yu baax te am lu ñor seeni doom allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom lu fay anti guérisseuse soxna na fi fàllu fal di xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alquran ndox euh, suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu la sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fal euh, yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fal ma nga